mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara e, di yëkkati sunu kàddu nag ngir leeral wax joo xam ne dañ koo jot e, mu jóge ci kenn ci wahaabi yuuna yi al wahaabiya nag am na lees waxoon ci ñoom ci wàllu fen te mooy de fenn ngir dooleel seeni gëm-gëm ak seen mazhab bu dëng jaral na leen lu nekk te loolu ci diine lañ ko boole moo tax lu mag mag mag faaw muy fen di ca boole di ko booleeg bee xale itam lu mu xale xale xale mu booleek ndawam ak fen màggaale koog noonu nag ba bee loolu e, képp ku leen topp ak xam seeni mbir ak yàgg leen déglu da xam loolu loolu nag ku muy sa aada di sa manin daanaka boo wootee ne ci ahlu sunnati wal jamaa nga bokk loolu dañ koy boole ci xaaimatu fenn yi nga xam ne yow ci ci loola nga tege masalan yàlla yàlla musal ci ñu mel noonu ñoo xam ne maanaam ci ñàkk wax luy dëgg ci sax ci wax safaan wax lu ñu xamul wax lu ñu jàngul wax lu ñu yërul yëkkati seen bopp fu ñu yeggul loolu mooy seenu doxalin ci lañuy ñuy dund ci lañuy ñuy dee waaye itam ci leen xisaab ëllëg eh, ba fenkat yi demee nag ba seeni fen leer ba ñu daati làlli a jàpp ne fan yi dañoo am fenkat bu bees kuy wuyoo ci turu Mouhamed Lamine Diop al aminu nag suñ ko wax mooy koo xam ne dafa wóor lu muy wax noonu la e, te itam dafa am gëm-gëm te e, am jom am fulla respecté boppam du fen du wax leen waaye kii moom al aminu moom ko des koy dindi ndax lii ma dégg mu wax ko eh, yàlla xam na ne awma jot trop ñàkk ko sax moo tax ma génn ci groupe yépp eh, te fasuma woon a yéene yëkkati sama kàddu ci menn mbir fileeg liggéey bi bi may def jeexul waaye dafa am yennati mbir yoo xam ne mënee su ko toogaale faw ñu sànni ci sunu kàddu eh, bi ma leeree ne duma mën a nekk ci groupe yi samay téereeg téere tariqa beeg téere tasawuf ak yi ma ci am yépp ngir bañ di ca dellu dama ko abale ngir mu sori ma séddale ko samay xarit ak samay rakk ngir ñu koy liir man ma nekk ci leneen lu may liggéey ba ngir rek na ma sori ngir bu ma soree bu dara xewee itam du ma ca dellu <laughs> forcé sama bopp tuuti tabaarakallah waaye yàlla dafa def eh, am na yuñ mënta muñ waaye nag kii ku bees kii moom muhammadul làmmiñ làmmiñ ñi xam ne làmmiñ képp la am amul xam-xam amul yar day leeral lenn ci wax yi nga xam ne wax na ko te dara du ci dëgg xam nga nit di ko tontu ci xam-xam da bàyyi ba mu wax xam-xam waaye nit bu waxee ay wax yoo xam ne lépp ay fen la da nga koy teg ne nàngam wax na ko ay fen la noonu ba mu jeex même su fekkee ne ci biir wax jooju daf caa wax xam-xam jërul tontu ku mel noonu ci fenn lu toll nii ci ay minutes même boo waxee ci biir xam-xam bu fekkoon ne wax na ci biir xam-xam waj tontu waaw ah. eh, wax ji nag gudd na lool ndax man yónnee nañ ma quarante neuf minutes yoo xam ne moom moo ko wax ma forcé waaw gëmm guux rek déglu ko lépp wallaay ba ma paree laata muy pare laa ne kii boo moywul ñaari téere yu daju ci kaw tarixa tijaan la am di ci sukkandiku di wax ndax yi muy wax am na fu mu nekk yama jàpp ci sama xel yooyu la tudd wala boog tudd na ca benn ba ca gën a fës mooy al anwaaru yi li hidaayati tariqa tijaaniya téere buy ŋaañu tariqa tijaan la téere boobu moom la am ndax bari na lu muy wax ma tiim téere bi nii ma ma ibbi téere bi tiim ko nii bàyyi ko muy wax la muy wax lépp maanaam day firi moom dafay tiim dara di firi waaw ku lu audio yi nga téléchargé wala nga am téere al hidayatul al anwarul rahmaniya nga déglu ndax kooku tamit dafa teg ay aqaayit rek a pas pasu tijaan yi tijaan wax ne lii ci téere sàngam tijaan wax ne lii ci téere sàngam gëw ma ne moom am na benn téere wala mos na koo yër nii gis ko gëwuma loolu ndax téere boo ko yëree gis ko faaw nga xam tur bi faaw nga xam li téere bi wundu boo waxee loo xam ne téere bi laalewul ak loolu nga xam ne yow téere bi yow yaa kër créé ay wax yoo xam ne dara dara dara amu ci dara amu ci masalan ci tàmbalimaa bi la tàmbalee fen dafa wax ne tijaan yi ñoom dañoo am ak genuk taqiye gu mel ne chiites yi nga xam ne seeni pas-pas daanaka dañ koy nëbbu dañ koy nëbbu kenn du leen xam loolu benn fen la mais boobu su fekkoon daf koo topp respecté fen woowu sax dana am solo mais daf ko fa bàyyiwaat indi weneenu fen woo xam ne ñaari fen yi mënuñoo ànd ba mu waxee ci tariqa tijaan ak ni ñu amee taqi ak ni ñu niroog chia yeeg ci wàllu goog nga xam ne seen gëm-gëm yi duñ ko wone ak nangam ak nangam ba pare dafa indi ne képp ku gëstu seen gëm-gëm da nga ko xam ndax ci seen téere yi lañ ko bind seen téere yi waa léegi li ñu nëbbu anamu li ñu nëbbu ñoom tariqa tijaan li ñu nëbbu ci seen gëm-gëm fan lañ ko denc fan ba pare day wax ne nangam même su fekkee ne wax nañ amul waaqe bi daf koy weddi ndax waaqe bi ñi ngi nii ñoom ñi ngi nii loolu lañu gëm nii waaw ay ana nëbbu gi léegi maanaam tarixatiyaan dañuy nëbbu respecté loolu muy aw fen waaye mën nga respecté ko respecté fen bi mu continuer waaye yokk ci de eh, képp ko même boo jàngul boo gëstoo boo liyee seen tiiri yii ma wax rek da ko ci gis ndax dana ca fàng waaw loolu est-ce que mën naa mbokk ak nëbbatu ana liñ nëbbul fan la ak fan lañ ko nëbbu kon nga xam ne waa ji dafay dajale ay wax xamul ci li muy wax dara xamu ko ci wallahi wal quraan azim ndax téere yi muy tudd li muy wax ci téere yi te mu ñàkk nekk ci téere yi ku mën a fen fen yu tooye noonu yow kenn waru laa déglu ci xam-xam dinaa ci indi ay misaal ay yum wax yoo xam ne masalan jawaahirul maani wa bulughul marami fu mu wax ne jawaahirul maani wa bulughul marami loolu mooy lan jawaahirul maani wa bulughul marami ban téere la loolu boo demee ci jawaahirul maani wa bulughul marami am ay texte yoo xam ne dañ ko photocopie nga xam ne ku nekk da koy partager sa moroom ka ka njëkk a envoyé texte ba kenn xamul est faatuwul sax yooyu mooy dawaat ba léegi nii ci ñi muy wàcc seen loxo ñu koy partagé ñeneen ñoom amuñu téere ba texte boobu lañu am mu ne loolu dafa bokk ci maraajew euh, tijaan yi mooy jawaahiru maani yi waaye daf cee bokk tamit lu ñuy tuddee almaqsadul ahmad téere bu tudd almaqsadul ahmad ci tarixa tijaan moom musuma ko dégg tey laa ko musu dégg ci àdduna téere bu tudd almaqsadul ahmad mu ne alkattaani moo ko bindee kan mooy alkattaani alkattaani mooy kan man am naa téere bu tudd alfahasu saamil li mu allafaati tariqa tijaaniya maanaam kooku téere tariqa tijaani rek la tur rek la téere bi téere bi yëpp ay turu téere kese moo ci nekk almaqsadul ahmad mooy lan kan moo ko taalif <laughs> ak lan la doon wax téere boobu lan lay wax moom almaqsadul ahmad lu mu nekkee marja téere bu mu nekk marja kenn xamu ko kenn xamoon mosuma dégg al maqsadu ahmad xam naa man xam naa téere bu tudd al ahmad e, ci ci leneen waaw am na téere ci leneen ci wàllu tasawu la koy wax ci sëriñam téere boobu xam naa ko waaye téere boo xam ne ci téere tarixa tijaan la bokk te tudd al ahmad mu ne kattaan yi moom moo ko taalif na ma jox page bu téere bi kese na ko photo mu publier ko am na téere bu tudd al maqsadul ahmad fi taarifi bi sayidina ibni abdillahi ahmad loolu téere la ki ko taalif mooy sidi abdusalaam ibni tayib al qaadiri maanaam kattaani sax amu ci léegi man maqsadul ahmad boobu mu wax te ne delluwaay la ci tariqa bi ci seen téere yi nga xam ne maanaam ñoom ñoo ko tariqa tijaan tijaan ñoom ñoo ko bind daal maanaam téere boobu anamu anamu kattaani moom mooy kan même maqsadul ahmad ba ma xam sax ka ko bind tuddul kattaani waaw ka ko bind tuddul kattaani nan la ne delluwaayu kan la loolu delluwaayu kan la loolu war nañ ko ko laaj mu ne dafa am téere tamit ci tarixa tijaan bu tudd mizaanu rahmati rabbaniya mizaanu rahmati rabbaniya fi tarbiyati bi tariqati tijaniya loolu kan moo ko taalif mizaanu rahmati moom amul ci téere tariqa bi li am mooy mizaabu est ce que moom xam na luy baatu al mizaab mooy lan mizaabur rahmati mu ne borom téere yi dafa ko bind ngir wane ne fii mooy balance su balance su mooy lan balance su yërmande mooy lan balance su yërmande mooy mooy yàlla fa lay fa lay nattee yërmande yàlla pour lan mizaabur rahmati rabbaaniya ubaydat ibni mbooja at-tishiti moom moo ko taalif léegi moom est-ce que xam na li nekk ci téere boobu ndax bu ko xamoon di wax li wax nee na téere bi non seulement waa ji da ko taalif ngir ngir wax ne fii fii lañuy ñu nattukaay la bu ñuy nattee yërmande yàlla ji ci tarixa tijaan ba noppi daat ne muxtasar la maanaam dafa tënk la ca futuxaatul makkiye fenn fii la mën a yem maanaam misaabu raxma amul benn alaaqa ak ak futuxaat makki amul amuñu ko misaabu raxma lan lay jàngale tarixa tijaan lan lay tarbiya bi ci julli juróom ak salawaatul xams waaw <laughs> ah. bi muy tarbiya ci salawaatul xams tarbiya bi muy tarbiya ci faati ci salaatul faatixi tarbiya bi mu lay tarbiya ci wàllu lislaam lixsaan liimaan ak maraatib ya nga xam ne moom yii dem moo ci nekk fan lam nit mos a waxee ne dañ caa ixtisaar lu ñuy tuddee alfutuhaatul makkiya benn xamoo turu téere bi ñaar nga fenne téere bi nangam lay jàngale te téere bi waxul sax lu jëm ci loolu misaab rahman looy contesté amu ci te amoo té boo amoon téere da xam ne du misaan mosoo koo teg bët xawma ku la bindal liste bi nga yor noonu di tararari te liste bi baa <laughs> daanaka la ca nekk kii bind li mu dara ba dara jeex mu ne rimaaxu xisbur rahim xam nga loolu ci na kenn du ko wax maanaam waa ji jàngul dara su fekkoon ku mën a liir la man mën naa koo baal mais koo xam ne turu téere mënoo ko liir xamoo luy idaafa mi rimaaxu xisbu arrahim loolu mooy lan rimaaxu xisbu rahim nit bu demee bay contre dara li gën a li gën a tuuti te loolu sax man ko taxul nga war a mën a contre mooy nga mën a liir waaye téere booy wax na fekk ne mos ngaa gis téere bi waxuma nga xam tuuru téere de nga mos a gis téere loolu dafa wuute am na ci am na koo xam ne xam na luy jawahirul maani dégg na koy wax muy tarara di ci wax mais musul gis téere bi fii benn waay ci wahabi yu ni mos nay tarara benn téere ibnu arabi ma wax ko ci diggu groupe bi ne ko waxal ne mos ngaa gis téere bi laa wax waxuma liir de gis téere bi teg sa bët nii nga xam téere bi li téere mooy lii fusuusul xikama ngi nii mu ne ma ala mikk nag man mosuma koo gis mosuma koo gis te ma ngi wax de ma ngay dajji di wax ibnu arabi kéeféer gam nekke te mosul teg bët fusuus mosu ko liir mosu ko àbb mosul am sa xarit bu ko am nii lañu contré léegi benn wahabiyun taxaw na fii ci wahabiyun yi wax fi ci ifaada al ahmadiya wax ba ba ba ŋaax ma ne ko est ce que ngaa gis téere bi yow mu ne ma alam nikk nag mosumaa gis téere bi texte bii ma dugal ci groupe bi daa am ku ma wax ku ma téléphoné ne ko mu mu seetal ma moom moom moom moo xool yónnee ma ma yónnee la nii nii mooy wahaabi waxam yépp lii la de amul benn téere bu mu teg bët di ko liir man xawma dajewuma ak benn wahaabi yu buy wax ci groupe yi wala télé wala fu mënti doon koo xam ne leer dama ne kii téere yi muy wax man am naa ci njortu gu wér ne moom liir na ko waaye ku ma dégg rek li may comprendre ci sa wax mooy yow de yaa ngi liir kenn ci gaa yi doon dal ci kaw tariqa bi liir nga seeni téere ñoom ñoom ñoo lay wax ne diw lee la wax fële yow amoo téere ba mosoo koo gis da ngaa doyloo ci lañ la wax rek yem ci amul leneen xam nga waa ji su ma nee taxaw ci digg nañ ñëpp di ko déglu mu ne am na téere bu ñu tuddee misaanu rahmati rabbaniya te lañ cay peese mooy wàllu yërmande yàlla ci tarixa tijaan ni ñuy tarbiya ak nangam ak nangam léegi daal ne téere boobu muxtasar la ci futuxaatul makkiya bu ibnu arabi daanaka te yow nga xam misaab wala nga am ko téye ko sa loxo yow doo am xiir doo sa xol dara du ci nekk lu nu nga taseeg waa ji xeex ak moom képp amul leneen mu dellu wax lu gën a garaaw sax yi ñuy yaakaar yépp mu ne am na benn téere bu tudd asirrul baahir fi man farada bi aljaamiu an aljawaahir mu ne téere bi ki ko taarif mooy cheikh sukayri loolu dëgg la mu ne Cheikh Omar Cheikh Omar ci rimaax day toxal ci moom lu bare baree baree bare day toxal day toxal ci moom lu baree bare day toxal ci kan léegi ci kan lay toxalee asirul baahir sukariñ moom moo ko taalif dafa am téere bu ñu wax aljaamiu am téere bu ñu wax al jawahir mooy jawahirul maani ak jaamiu bu sidi muhammad ibn al mishri jaamiu nag borom jaamiu borom jawahir di sidi ali harazim barada faatu na ba am juróom benni at wala lu ko lu ko jege wala lu teg tuuti juróom benni at yooyu yëpp mu nekk kook cheikh radiallahu taala ñoom ñaar ñëpp ku nekk dafa bind téere te ñaari téere yooyu ci dund cheikh lañ ko bind radiallahu taala anhum mooy jawaahir muy jaamia borom jawaahir nag te mooy Sidi Ali Harazimi faatu ba teg ñu teg ci ay at yoo xam ne borom jaamiu moom am na ay information ay mbir ay imlaat ay taqaayit yoo xam ne jëlee na ko ci cheikh yoo xam ne borom jaamiu jotu ko indi loolu nga xam ne nag yokk na te cheikh wax ko ca gannaaw borom jaamiu borom jawaahir ba mu faatoo am na yu dolleeku yoo xam ne jaamiu ma ca te nekkul ci jawaahir Seydi Sukayriñ nag radiallahu taala bind téere boo xam ne téere su mag trop tuddee ko assirul baahir fii man farada bihi aljaamiu maanaam la nga xam ne moo ñëw ci jaamiu ci ay wax te ñëwul ci jawaahir kon téere ba lan lay wax ci jawaahir ci jaamiu lay wax maanaam la am ca jaamiu te amul ca jawaahir est kon xel nangu na ñu ne téere ba day wax ci jawaahirul maani wala lépp lu nekk ci jawaahirul maani moom lañ fa indi ca téere ba te waa ji loolu la wax daf ne asirul baahir jooju daanaka borom eh, seedi sukar yi daf ca indi lépp loo xam ne daanaka ay wax la yu amoon ci jawaahirul maani du dëgg moom waxul ci jawaahir aslan li ñëw ci jaamiu te ñëwul ci jawaahir xanaa déggu arab assirrul baahir fi man farada bihi l jaamiu anil xanaa wax ji na léegi nag mu des li wax ne Cheikh Omar dafay dafa doon toxal ci moom lu bari ci moom nag dafay dellu ci ñaari mbir benn nga ne ci moom téere bi laa ci jublu ci téere boobu te mooy assirul baahir boo ko waxee wax aw fen boo nee ci moom li ma ci mooy ci sukkeerij boo ko waxee wax aw fen bum ci doon rek te nee na rimaax boobu boo ci demee da nga fekk ne dana toxal lu bari ci moom maanaam ci sirul jawaahir wala ci sukkeerij rek bum ci doon lu dëgg ak sirul baahir si sukkeerij mu ngi ko taalif ci 1910 boobu fekk na Cheikh Omar kañ wax nañ ne Cheikh Omar moom mi ngi moom mi ngi làqu mille neuf cent mille huit cent soixante quatorze soixante quatre maanaam mooy mille deux cent quatre vingt un wala nga ne mille deux cent quatre vingt deux mooy xarem bu mujj ba waaw mille deux cent quatre-vingt-deux teg nañ ci dix-huit ans Sukayri mi nga wax ne moo bind taalif bii nga xam ne Cheikh Omar ci la doon jëlee Sukayri juddoogul dix-huit ans maanaam Cheikh Omar Cheikh Omar bind na rimaaxam ba Cheikh Omar xare fi ba làqu ñu teg ca fukki at ak juróom-ñett téere bii nga wax ne Cheikh Omar ci la doon toxale ka ko taalif dix-huit ans après Cheikh Omar la judd sirrul baahir téere bii nga xam ne ca lu bari ca rimaax rimaax toxal na ca lu bari téere bi ci boppam bu fekkee téere bi nga jublu téere bi mille neuf cent dix lañ ko taalif seexoo nga faat seexoo nga làqu mille huit cent soixante quatre ñaata moo dox ci diggante bi ana liñ toxalee jëlee ko ci sirrul baahir indi ko ci rimaax bu Cheikh Omar xam nga kon kii xamul luy sirrul baahir xamul luy rimaax mus xamu ci benn yooyu yëpp tur yi rek lay xam nii tur yi te dañ ko ko bindal di aw këyit la yor woo xam ne niñ tartibi mbir yi dara baaxu ci lañ ca wax ne tiir yi noonu la demee dara baaxu ci ñañ wax ne ñoo ko taarif dara baaxu ci fan la àdduna di jege bu fekkee ne nit ñi léegi ci fen lañuy ñuy ay nit yàlla di dal seen kaw di xiirta nit ñi ak di wax ne nit ñi dañoo nekkoon ci bidaa ci caaxaan fen wu bidaa ci boppam ci fen la mën a yem fen mooy bidaa yu gën a mag te loolu mooy seen doxalin mag ba boo tàmbalee ca ibnu taymiya laa de ca ibnu taymiya ba fii ma toll nii ba ki mujj ba ki mujj fen nii mooy waa ji ay feni neen gis ay feni neen ngay gis waaw ku la ci neex nag jëlal moo xam mu bind walla mu wax ñii mujj moom ci Sénégal ñii dañuy sàcc baax ci jàmbur moom ñii ñii moom dañuy dem dem ci ab site xool ku doon wax ay wax yu am faayda nga daal di jël loolu copier ko daat koy bind ci sa tur moomale ko sa bopp dugal ko sab site ñu naan diwa aay liñ def liñ nangam ak nangam fekk yow daanaka xamu xaale wala kasiran lépp ci fen ak sàcc nga loolu mooy mbir mi fa ci loolu ngay ame lépp koo fi gis ñu naan docteur ci gaay wahabi yu ni sàcc la benn muy sàcc bax wala muy wax lu dul dëgg wala mu doonu fenkat du sell mukk wahaabi yu moom ku bon képp la du leneen bon nga yaay xam foo koy féetale ci fenal mag ñi nga koy féetale wala ci ŋàññi nit yàlla nga koy féetale wala ci di wone ci sa zaahir loo xam ne sa baatin a gën a bon fii yaay xool bu la ci neex waaye wahaabi yu du baax de lu baax lu mu baax baax ëmbal na ak mbañeel ñi nga xam ne ñëpp seede ay nit yàlla la lu mu baax baax kon waa ji ci boppam moom turu téere yi xamul lu téere yi moom tur bi liste biñ ko jox noonu pour mu koy liir liste boobu rek la am amul leneen waaw ah. mu ne te léegi daal li mu bëgg a wax mooy tijaan yi dañoo am seen téere spécial fa lañuy ñuy jëlee si mais <laughs> ana gan kuréel moo amul spécial fu mu jëlee ay biram fiq bu dee Malick spécial dafa am téere yoo xam ne ci fiqu Malick kese la waaye ci mën a fen dafay jël alxuraan ak sunna nekk mbir moo xam ñaari téere la alxuraan sunna du ñaari téere alxuraan képp du benn téere ndax benn téere boobu doo ko jariñoo yow benn téere bi danga nga ci liir wax dem seeti ko dangay liir wax ji ba pare dem wuti wëri ko kon yow jëmu du benn téere nga taxaw ay téere téere mooy alxuraan ndax alxuraan lim lay wax yow jëloo ko jëfee dangay dem nga wuti ku la faram-fàccee mbir mi ña lay faram-fàcce ay téere lañ xadiis yu yonent bi sax sax daa am foo koy wëree ba xam wér naag wérul sax da koy wuti ci ay téere teg sa xadiis bi mënoo cee xam wér naag wérul maanaa bi mënoo koo xamal sa bopp da nga koy wëri ji lan la ci boroom xam-xam yi wax ak nan lañ ko déggee <laughs> loolu loolu ngay defi kon liñ daan alquran ak sunna du benn téere ay téere téeméeri téeméeri téere mooy alquran ak sunna mu gëm gëmloo nit ñi ne daa am ñaari téere bu ñuy wax alquran ak bu ñuy wax sunna boo xam ne wahaabi yu ni ñoo ko téye wallahi lu wahaabi yu ni téye bëgguma ko boo xaa wiinu ñoo ko téye léegi accaparé ko ñeneen ñi daati créer seeni masaadiri bopp fiq boo jël ci fiq yii bu dee fiq Ahmed ibn Hanbal ay téere spécial ci fiq boobu kese lay wax spécial bu dee ci Malik spécial ci loolu rek la ñuy wax waaw li ngeen jàppee ne moom mooy aqidatu ahli sunna dafa am téere yoo xam spécial loolu lay wax ci pas-pas boobu seen pas-pas bi rek lay lay lay lay lay fara pàcce foofu ngeen di jëlee wax yi foofu ngeen di roy foofu ngeen di liir ana gan mbir moo amul ay téere spécial yu wax ci loolu loolu day teg te nekkul ci alxuraan kon kenn nekkul ci alxuraan kenn nekkul ci sunna ndax amul fii kenn koo xam ne benn téere alxuraan nga yor ak benn majmoo ahadis di ci référé kenn yoru fi saxiixul buxaari kese ci këram ak kaamil alxuraan kese ci këram nga xam ne yii mooy sukkandikukaay déedéet koo fi gis bibliothèque ku la gën a nekk docteur bibliothèque bu gudd a gudd la lépp ay téere la yooyu moom ci fu muy sukkandiku moom loolu alxuraan la bibliothèque bu fees dell noon noon téere yooyu alxuraan loolu mooy alxuraan yu fees dell dell yooyu mooy sunna waaw kay loolu mooy alxuraan loolooy sunna kon bibliothèque bu fees boobu mooy alxuraan sunna waaye du ay benn téere ki ñaari téere te fànn wu nekk nag am na téere spécial yu koy wax bu <laughs> dee tarixa am na téere spécial loolu lay wax mal aybu fi dalika léegi rek gannaaw ba mu waxee ci téere njaaxum yooya wax ba bu waxee rek nga xam ne xamul téere bi mësu ko dégg mosu ko gis xëy na nag bindal nañ ko tur wi wala am na fu mu gisee tur yi bind ko jàpp ko ñëw daat koy wax daal ne téere boobu boo ca demee daanaka man fa ay wax yoo xam ne danañ ci ñëw danañ ci ñëw goo mooy danañ ci ñëw morke bi rek dara du leer waaw ah, léegi mu jógee fa nag daanu ci njaaxum gu gën a rëy mooy léegi day wax ci pas-pasu tijaan yi pas-pasu tijaan lu ci jiitu mu ne ru'yatu nabi yaqazatan gis yonent bi yaqazatan loolu moom ci pas-pasu tijaan la bokk léegi Eh, da ngay dem ci jawaahirul maani boo demee jawaahirul maani loo fa fekk loo lan nga fay fekk maa moo xamul sax ni ñu ni ñu eh, gis yonent bi yaqasatan du masala tijaan du masala tijaan ndax moom tijaan fi la fekk loolu <laughs> fi la ko fekk fi la fi la ko fekk fi la ko ñëpp fekk di tam lu kenn ko créé boroom xam-xam yi ñoo ci wuute ca kaw wax ca bind ci téere loolu lu suñu yoon ñun lu dul ànd ak ña wax ne gis yonent yi mën naa nekk ñu d'accord ci eh, mazhab boobu ndax am ay nit ñu sell yoo xam ne mbir moomu karaama jooju am nañu ko te maa ngi defee benn kii boo xam ne mën na maa indil benn texte boo xam ne yonent dana dekki benn mutasawif wax na ko muy tijaan muy murit muy xaadir muy bu mënta doon boo xam ne wax na ne yonent bi dana dekki ñëwaat ci àdduna di wax nit kenn mosul wax loolu benn mutasawif mosul wax ne yonent day dekki ñëwaat di wax ak nit ñi yonent day dekki la ma kenn indil baatu yonent day dekki ci benn téere bu mënti doon laa nag benn téere bu mënti doon yonent day dekki ñëwaat gisante ak nit ñi yonent day dekk laax de yonent day dekki te kuy wax loolu ngay wax e, Ahmed Lo ba muy bind ci taqrisu asxaasam ba loolu la fa wax du dëgg e, e, Mor Kébé bërki démb rek mu ngi doon wax loolu waaw yonent bi du dekkiwaat ñëwaat ci àdduna kan moo wax yonent day dekki ñëwaat ci àdduna ku wax loolu kan moo ko wax fan lañ ko bind ban téere indi ma texte buy wax ne yonent day dekki amul waa jii di wax di fen na indi benn texte boo xam ne ci jawaahir wala ci jaami wala fu manti wax na fa indi benn texte boo xam ne wala fu ko mënti jëlee texte boo xam ne benn mutasawif day wax ne yonent day dekki day dekki ñëwaat di wax ak nit ñi kenn musul wax loolu ma dolli ci beneen défi beneen défi yeewaat leen beneen mooy euh, nu mu keneen kenn na indi benn texte ci tarixa tijaan boo xam ne day wax ne salaatul faatihi moo gën moo gën alquran jàng salaatul faatihi moo gën jàng alquran benn texte buy wax loolu benn texte buy wax ne salaatul faatihi jàng ko moo gën jàng alquran kenn na ma indil texte boobu waaw ah, waa ji day liir nangam nangam taadilu nangam min al mu daan ne cheikh nee na salaatu moo gën ne na nangam gënee na ko nangami yoon baatu moo gën fan la nekk ci biir texte bi baatu moo gën moo gën soxla mu wax ci bari baatu moo gën mooy lan ci texte bi mooy an wala mooy fii wala mooy taadilu wala mooy cheikh wala mooy tijaan mooy ban lu ciy firi moo gën ci baat bi mooy lan lan la ci bul fàtte nag ci jaa jawaahir jooju nga yor cheikh dafa wax ne alquran moo gën ci lépp lu ñuy jàng alquran a ci gën min nii te loolu ñëw na ci jaamiu bii nga maanaam jaamiu est-ce que mos nga koo gis teg ci bët nii nga xam ne lii mooy téere bi wallaay boo waatee sa diggante yàlla mosoo gis jaamiu téere tijaan yi du téere yu ñuy télécharger ci internet maa ngi dégg waa ji mi ngi wax ne nee na boo bindee rimaax ci internet da nga ko télécharger ah man de sàkku naa ci fukki nit moom ñu télécharger ma jaamiu mu ñëw télécharger ma rimaax te yéen ñi may dégg ku mën a télécharger Rimaax nga won ma ko pour ma xam ne Rimaax mënees na ko télécharger ci internet nee na boo tàppee Rimaax léegi da ko am par PDF léegi na ma moom na ma envoyé Rimaax PDF boo xam ne ci internet ñu mu wax na bi mu ko jële téere tarixa tijaan jënd rek jënd rek yi ci ëpp solo jënd rek dañ koy jaay ba léegi di ko defar ba léegi di ko tabax ba léegi di ci di ko taxqiq ba léegi waaw te boo amul yow alal aqal boo ci amul téeméer war ngaa mën a noppi nag fahrasu saamil boobu nga xam ne ay turu téere tarixa tijaan rek la daanaka yoo xam ne ay mat boo ak yu mel noonu maanaam mën nga faa fekk sept cent ak lu teg ci ay téere ñaata nga ci am xanaa mënoo ma wax ne jawaahirul maani nga am après nga daati daati ferenkulaayu ji te sukkër yi wax na la am na lu ñëw ci jaamiu ñëwul ci jawaahir am na lu nekk ci jawaahir te kenn du ko jëfee benn tijaan du ko def waaw benn tijaan def am loo xam ne folli nañ ko loolu leneen ñëw na remplacer ko te mi ngi ci jawaaru maani waaw kon téere tariqa du benn téere téere bi ensemble la maanaam da ngay liir dafa lay jox yitte da koy da koy jox yitte pour xam ko waaye mënoo toog fële di ko contre te xamoo ci dara te loolu mooy aaday wahaabiya maanaam lépp lu ñuy contre fi ñu toll nii boo leen xëbalee doo gisati kenn ku taxaw jànguñu ko jàngaanuñ ko mën nañoo liir ku doon kontar ak kuy attaqué ñu liir la mu wax ñëw jël loola mu nekk seen attaque moo tax ma waxoon ne wahabiya du fent lu bees fen wu yàgg lay weesal fen wu yàgg lay yeesal waxaat ko te du xam ne fen woowa am na lu ko tontu woon ca jamonoon ba ci téerim bii muy wax ne al anwaaru rahmaaniya ba ci sëriñam bi mu gëm nii mu bind taqdis asxaas làpp nañ ko fi du benn du ñaar te du jeex nag ba ilaa yawmi diini kenn du ko wàcc waaw mu ne léegi boroom xam-xam yi nee nañu kenn sañuta julli ci gannaaw ab tijaan lu dul ñàkk pexe daal ñàkk pexe boroom xam-xam yooyu ñooy ñam xam nga day gis ñoo xam ne ay fenkat ay jaamukatu buur ay ñoo xam ne fatwaa yu yoo xam ne mooy sab liggéey la neex nguur ga ñooñu ñooy borom xam-xam wala ñan la jublu ba ana ban borom xam-xam moo mas a wax ne ab tijaan kenn du julli ci gannaawam. léegi su gëmee wahdatu wujud nag nee na doo ko gëm doo ko gis moom mutlaqan waroo cee julli ci gannaawam. maa ko fiir mu indi benn texte ne texte bi ci jawaar maani la jóge léegi day woote ne wujud bi yëpp xoba leen la yàlla dafa ñëw léegi affaire moo gé même ibnu taymiya loolu la gëm même ibnu taymiya loolu la gëm bu dee loolu mooy wax datu wujud ibnu taymiya loolu même teg teg loolu lay wax rek loolu lay wax ci majmuul fatawa ma indi mi ngi nii ibnu taymiya mooy wax nii ci majmuul fatawa cheikh lislaam taqiddin ahmad ibnu taymiya alxaraani itina اعتنى به وخرج أحاديثها عامر الجزار أنور البازي الجزء الثاني page 245 mu wax ne ci tawxid rububiya ngir sellal rek yàlla ak màggal ko mu wax nag ci wàllu kainaat yeeg yu mel noonu ni ñuy jaamoo yàlla ak ni seen ni ñu ni ñu tafoo ci yàlla ni ñu taalluqee ci yàlla subhaanahu wa taala maa ne mënuñu amaluñ seen bopp dafa mel ne kenn am muy yàlla dafa mel ne dañu yàlla moo taxaw ñëpp wéeru ci kawam suñu puusee su li su su su randoo ñëppay daanu kon kenn taxawul ñi taxaw ñëpp dañoo wéeru te ku wéeru taxawoo mu yegg ca wax ne nag walkaa inaatu ñu firi wal kainaatu nekk téef yépp laysa laha min nafsiha shay'un amuñu lenn ci seen bopp existé wuñ ah xëy na existé wuñ lay wax mu gën koo firi firndeel mu ne bal hiya adamun mahab wa nafyun sirf maanaam kainaat yi ci boppam adam lañu existé wuñ wa ma biha min wujudin fa minhu wa bihi wa biha kainaat yooyu lañu am min wujudin ci ak existence seenuk am fa minhu ci yàlla la bawoo wa bihi te ci la existence bi di amee maanaam Ibn yi moom dafa jàpp ne kainaat yi ci bopp amuñu yàlla rek moo fi nekk ah loolu de la mutasawifuun yi di wax loolu mooy waxdatu wujud eh, bi ñuy wax te moo di ne existence lépp dafa basé ci yàlla mi ngi mel ne ñuul mi ngi mel ne ñuul ak li ñuul téere bi dafa ñuul couleur ñuul est-ce ñuul mën naa génn dem taxawi nee ñu ne déedéet couleur ñuul kay faaw mu nekk ci kii waaw couleur ñuul am na wala existé na wala existé wul ñaari wujud a ngi fi waaye benn wujud la ñuul a ngi nii téere ngi nii téere bi man na fee nekk te du ñuul wala tàng ak ndox ndox mën na fee nekk te du tàng waaye tàngoor wi ci ndox mi est-ce que tàngoor yi mënul naa génn dem toogi nee génn ndox mi déedéet moom ak amam ci ndox mi lay doon ci ndox mi rek lay amee tàngoor woowu tàngoor wi tàngooru ndox bi ci ndox bi rek lay amee mënul génn ndox bi moom kon existence am ci biir existence ndox mi la nekk yàlla amam gi ci biir amam googu la lépp di amee lenn mënta génn yàlla taxawi ne kon yàlla rek mooy alqaimu bi nafsihi ah kooku mooy waajibul wujud keneen koo gis nag dafa wéeru ci yàlla dafa baasewu ci yàlla yàllaa ko yëngal yàllaa koy doxal moom mënul dara mooy li ibnu taymiya wal kainaatu laysa laha min nafsiha shay'un bal hiya adamun mahd wa nafyun sirf wa ma biha min wujudin fa minhu wa bihi fa julli ci gannaaw ibnu taymiya daganul ndax day woote wahdatu wujud mu ne ku gëm ne salaatul fatihe moo boo ko jàngee nangam mooy tolloog nangam da ngay génn ci diine ji loolu ñoom génnee nit ci diine ji du problème même boo naanee attaay sax njëkk leen a naan lëwal te nga war loolu leen a xaar pour ngeen naanandoo mën nga cee génn ci diine ji génn ci diine ñoom du dara ci waxaabi yun génn génnee la ci diine ji du problème loolu ñoom dañ koy naanee attaaya waaye nag mu nekk dëgg moom mooy jafe mu génnee la xam nga koo xam ne fi mu dañuy xool ba xam moom ngëmam gi est-ce que ngëm gu wér la xam nga ngëm goo xam ne yaa ngi ko teg ci tëj siiñ ak est-ce que wér wérul la ñuy xool léegi ngay génne keneen ci diine yow xamoo sa bopp ah, mu ne salaat faatiha dañ cee sartal ak laat loolu bu amee texte buñ ko mës bind ci tariqa bi mu won na ko salaatul fatiha pour nga jàng ko faaw nga laab laabuk ndox loolu na na ko indi jawharatul kamal mu ne jawharatul kamal aqida fasida la pas-pas bu bon la lan mooy pas-pas julli ci yonent nekk pas-pas lan mooy pas-pas bu bon bi ci jawharatul kamal nee na boo déggee arab di liir jawharatul kamal da nga xam ne Eh, niñ ko tëggee jubul lan moo ci ñàkk a jub ak nit ku mënta liir ku xamul mudaaf ak mudaafu ilayhi eh, nan ngay waxee ci jawhar kamal naan dañ ko dafa nii wala dafa naa wahabiyun ñooy ëpp fit saa su nekk fitu wax rek nag fitu wax mm, fitu xeex fitu jaamaarloo ci xam-xam jàkkaarloo ni laa yuqaatilunakum jamian illa fi quram muhassanatin aw min waraa i kese waaw sama sëriñ ba daana wax ne yàq yóbbante saaga moom lañ gën a mën ci jàkkaarloo waaye bii moom seen ponkal duñ jàkkaaru kenn barki dem am na ko daw benn débat achariyé fii ba pare dem ci groupe di fa foofa ci ci groupe naan dañ maa tegal ay ndëgg sërëx yoo xam ne dama ko comprendre woon après ba comprendre ma daal di woote daal ne xamal nañ ma di fen waaye loolu mooy seen siiwa ki bind téere itam jàkkaarloowul ak kenn ba tey jàkkaarloo wut ak sax ñamu ay taalibeem ah bay jàkkaarloo keneen mu ne borom xam-xam yi nee nañ ibaaraati eh, jawharatul kamal dafa am rakkaaka ana borom xam-xam yooyu ñooñ ñoo mën a fen ñooñ ñoo mën a fen ci ay boromi xam-xam lan mooy rakkaaka ci boppam ak rakkaaka gi fan la nekk maanaam ñàkk a jubug baat yi loolu mooy rakaaka maanaam tëggin wi ci boppam moo baaxul niñ ko tëralee moo baaxul loolu kat moo ko war a àtte nit ñu feru ijji nit ñu mënta liir ñooy àtte ñooñ ñoo war a àtte mbir mu ne dafa am baat yi ñàkk tegg ni ci nekk comme euh, baatu al asxaab xam yoo xam ne maanaam moo tax ma ne iba wahabiyun lu du wax lu bees fen wu yàgg rek la nekke maanaam loo xam ne loola lañ doon wax ba ca ba jamono ji di doon a xew loolu lañ doon wax ba tijaan amee loolu lañ doon wax al asxaab baat bu dafa ñàkki teggi lan moo <laughs> ñàkki teggi est ce que ci siyaaq bi mën na mën naa am baat bu ñàkk teggi loolu est xel nangu na loolu ngay tagg ni tagg yu neex tagg yu neex ba ci digg ba ci biir digg bi am baat boo xam ne saaga lay tekki te yow saaga nga ci jublu yow même bu fekkoon saaga lay tekki sax dañ lay baal ndax dañ naan yow mii doon tagg nii mënoo cee jublu aw saaga même bu doon askam lu ñàkk teggin la loolu moom dañ koy dañ koy tëb dañ naan ah moom ci loolu kon léegi te ñàkk teggin gi fan la nekk baat bi moo ñàkk teggin wala waa ji doon wax moo ñàkk teggin waa ji doon doon tagg tàgg nan ko koy defee ba ci digg ba ngay saaga te as xam nag loolu bind nañ ciy téere man loolu loolu daanaka jëruñ ci def mu ne kon ñoom dañoo bëgg a wax ci seen wax ji ne nangam loolu mooy mbiru borom taqris asxaas bu bëggee fen danaan kon ñoom ñi ngi bëgg a wax nangam yoo xam ne yow yaa koy xalaat sa xel de daan ne ñoom loolu lañ bëgg a wax kon buñ ne salaatul fatiha boo ko jàngee mooy tolloog nàngam kon liñ bëgg a wax ne mooy kon salaatul fatiha moo gën loolu loolu ci ban xel mooy xalaat loolu waaw mu ne léegi jawharatul kamal kom dañ koy jàng te boo koy jàng faaw nga laab te alquran mën nga ko jàng te doo laab kon liñ bëgg a wax mooy alquran jawharatul kamal ko gën <laughs> kon liñ bëgg a wax ci noo ko xalaatee raisonnement bi ku ko joxe mu ne Cheikh Omar man damay indi rek li mu wax ci di xam ne ay fen la man taluma di nekk di mën a tasa koo xam ne daanaka moom li xamu ko bu ko xamee rek fu mu ma woo ma dem bu demee ba xam ko ba am téere yi wala mu xam nga xam ne bu waxee nga xam ne kii xam na téere bi su ko defee fu mu ma woo man ma ñëw mu ne Cheikh Omar ci biir rimaax Cheikh Cheikhu Tidiane comme ni ko Cheikh Omar nettale ci biir rimaax dafay woote ay makaama yoo xam ne dafay woote ne moom moo sut yonent yi maqaama yonent yeeg al anbiya wal mursalun texte bi laa soxla maanaam faqara bi wane loolu nga xam ne Cheikh da cee woon ndax Cheikh dafa wax ci jawaayir ne saaba yi ñoo féete kaw wëli yu yëpp xeeti wëli yi mosa am yëpp saaba yi leen féete kaw léegi nag nan lay demee ci beneen téere di fa woote maqaamay yonent yi man loolu ma jaaxal mu ne fanaawu mooy nga dem ba dara dootu la warati lu la neex ngay def di layee waabud rabbaka xatta yaateekal yaqin loolu ci ban téere tijaan ngay fekk lii mu wax moom mu ne ñiy fanaawu dañuy gis ay jinne ak ay seytaane ñu naan leen euh, man la yàlla léegi loolu itam lan mooy dalilam moom ci ne nit ñi fanaawu dañuy gis yàlla est fanaawu sax mooy lan moom mooy da ngay da ngay lan fanaawu mooy lan mu ne ndax seede abd abdul qadir jeylaani moom loolu moo ko daloon ak ak ak euh, gis nga ñoom bu ñuy wax ci abdul qadir jeylaani dañ koy respecté lool lool lool lool borom xam-xam la ci xanaabiyey la bokk nangam nangam kilifa la bañ nag ne du du tasaw du mu tasawif nag moom du ko nekk du liñ ko sosal tariqa ba dañ ko ko jiiñ waaye du moom nangam dañuy lànk lépp lu ñu wax ci Abdul Qaadir Jilaani dañ naan du dëgg dañ ko ko sosal loolu nag Abdul Qaadir rek lañ ko defal de dañ ko defal keneen maam boo ne woon Seexu Tijaan wax na ci jawaayir nangam duñ wax ne dañ ko ko sosal de dañ naan moo ko wax te yéeféer la nag bu dee Abdou Khadre Jeylani dañ naan lépp luñ ko sosal loo xam dafa wuuteeg sunna waxu ko du dëgg bu dee Abdou Khadre Jeylani bu dee Abdou Khadre même bu Ibn Taymiyya Ibn lu Abdou Khadre wax su fekkee ne moom ci xel mi loolu baaxul ci moom danaan du dëgg du wax Abdou Khadre Jeylani daa juum de danaan du dëgg dañ ko ko sosal bu dee keneen nag bu doon Ibn Arabi daal yéeféer la nag noonu la wahaabi yi di doxee ba léegi Abdul Qadir Jeylaani lépp luñ ko soxal lépp luñ ko waxal lépp lum bind lépp luñ ko askane dañuy bañ ba tëdd ci naaj wi ne Abdul Qadir Jeylaani mosul wax loolu ci imma sunna yi la bokk dafa dégg sunna dafa nàngam waaye keneen déedéet ah Sidi Ahmed Tidiane yi kooku fonkoon na sunna kon luñ koo xale nàngam euh, kon duma ko nangu lu waxu ko duñ def loolu abadan lépp luñ waxal cheikh même bu dul dëgg gëm nañ ne dëgg la te teg nañ ci àtte nag ci kaw dëgg ci kaw fen woowu teg nañ ci àtte daan leen kii bari na lu ñuy wax boo demee ci jinaayatul muntasibil aani yi xam naa waa ji musul dégg sa baat boobu jinaayatul muntasibil aani yi Seydi Sukkari indi na ko fa ne nangam askane nañ ko seex siiw na ñu ngi koy wax du dëgg du jeex du xaaj même téere téere sàngam ñi ngi koy askane ci tariqa bi siiw na ñi ngi koy tasaaroo du dëgg même téere sàngam bi nga xam ne dafa bokk ci tariqa bi am na lu ca nekk loo xam ne wérul ak askanam jëm ci cheikh ñun tariqa tijaan ni xadis ci doxee noonu la ñuy doxee waxee nangam cheikh wax na ko kan moo ko wax kooka kan moo ko jot li ba ci ifaada al ahmadiya nga xam ne moom jamonoonte naag cheikh wax nangam jëlewu ko ci seex direct ci feneen la ko jëlee te loola am na damm-damm bu am ci wax ji te seetluwu ko lépp la ñu tanqix waaw jawaahirul maani am na ci nekk loo xam ne nangam ak nangam jaamiu wax na nangam ak nangam maa ngi laaj ban téere moom la njëkk bind ci tariqa bi ndax wahabi waxam bépp jawaahir maani kese lay wax moom jawaahir maani lay wax buy indi page page jawaahir maani la amul leneen amul leneen fenam yépp jawaahir maani nee na jawaahir maani nee baatu taadilu nga ne afdalu kooku koo yaa dàq fen ci kaw suuf te nañu dogu ne amul benn jaamu yàlla boo xam ne tiyaaba jang cay am moo ëpp doole alquran est ce que am na wala déet maanaam est ce am na jaamu yàlla boo xam ne boo ko defee tiyaaba ji nga ciy am moo ëpp doole alquran masalan su ma yonent bi salaa sallam wax ne comme ni wahabi yu ni di waxee nii nattalee rek mooy yonent bi moo wax ne ku jàng benn xaraf ci alquran da nga am fukki tiyaaba boo jàngee téeméeri xaraf téeméeri tiyaaba boo jàngee ñaar téeméeri xaraf ñaar téeméeri tiyaaba est que amul zikkar yoo xam ne kenn xamul nu mu toll ci yàlla loolu am na ci sunna wala amul zikkar boobu nga def ko est-ce que tiyaaba nga jàng lixlaas wala falaq ak naasi wala nga jàng jukki bi alquran est-ce que amul zikkar boo xam ne tiyaaba jaca ne moo ëpp doole fuuf jukki boobu nga jàng waxuñ ci ngëneel te bu gënte déedéet ban moo ëpp tiyaaba ci zikkar bii ak jukki alquran bii bu ci ëpp tiyaaba loolu am na wala amul est-ce que amul zikkar bu yonent wax ne ku ko def ci bis bi nit mënul def lu la ëpp doole yow waaw su fekkoon ne ci bis bi dafa am ku jàng alquran ku jàng jukkib alquran wala jàng kaamil nga def zikkar bi yonent bi waxoon ngeen faatu yéen yowmal xiyaam yéen ñaar ci bis boobu ku kan moo ëpp doole ci làmmiñu yonent bi salaay salaam zikkar sàngam yonent ne ku ko def faatu ci bis bi bis boobu nit mënul def ci lu baax lu ëpp doole li nga def yow lu dul nit ku def ci li nga def lim bu ëpp li nga def waaw zikkar boobu gënul alxuraan loolu dëppoo nañ ci alxuraan a gën ban moo ëpp tiyaaba ci ñoom ñaar alxuraan a ko ëpp tiyaaba nga jàng alxuraan mu ëpp tiyaaba wala wala nga zikkar boobu bu fekkee tiyaaba ju yi nga soxla man moo ci ëpp doole man moo ci ëpp ay tiyaaba loolu lañu war a seet loolu lañu war a tontu ñoom loolu lañu war a tontu kon dafa mel ne daanaka waa ji lim wax lu ci ëpp wax nañ ko euh, téere yim tudd Eh, te am lum askane moo nekk ca téere te nekku ca ak lu mu wax ne téere ba loolu lay dox te téere ba waxul loola ak téere yu mu wax te amul ci tariqa bi eh, ak yu mu wax ne moo am ci téere fa ndax wax na ne tiijaan yi dañoo gëm fannaaw te fannaaw mooy eh, nga nga bàyyi sharia bi ci boppam nga teg ko ci suuf di def lu la neex bu waabud rabbaka xataa yaatikal yaqin nee na loolu boo demee ci rimaax da ko fekk na ma jox texte boobu mu ne alxaqiqatul muhammadiya ci tijaan yi li muy tekki mooy am na ay mbir yoo xam ne yonent yi xamuñu ko ne na loolu la alxaqiqatul muhammadiya di tekki léegi alxaqiqatul ahmadiya lan lay tekki kon alxaqiqatul muhammadiya loolu man tey laa ko mos a dégg ci àdduna nit ku am fit wax loolu alxaqiqatu muhammadiyya mooy tekki ne daa am mbir yoo xam ne kenn xamu ko yonent yi sax xamuñu ko yi rek ko xam te ñoom ñooy xawaas yi loolu senegal lañ koy xam ba Sénégal boo boo kiiwee Ibnul Qayyim nee na xam lan di wax na ca Zaarul Maad di wax na ca naanga boo tuddee ñaari téere ak ñaari riwaaye Abu Hurayra wala nga ne Abu Saïd Xudri nit ñi ngi la tàmbalee fan jàpp ne da ngaa xam dara moo tax kóllëre gu la neex nga wax ko comme nit ñi xamuñu luy tasawuf xamuñ dara wahaabi yu ni yaag ñoom a yem da nga naan xaqiqatul mooy nangam yow yow li ngay wax yow da nga rek wax ko noonu dara amu ci dara du ci dëgg waaw ah. xam nga mu indi listam bii nga xam ne masaadir yi la ci def ma nga ci bind téere bi téere bi nga xam ne mooy marji'uhumul awwal wal aham mooy jawaahirul maani loolu du dëgg de <laughs> marje ci lan xam nga téere tariqa bi lu nekk dafa am marje ci nàngam dafa am loo xam ne boo koy wër doo ko wër ci jawaahir am na yeneen téere te jawaahir am na kum fi nekkal jawaahir ak jaamiu lañ bindandoo doonte jawaahir moo njëkk jawaahir ci boppam am na téere bu ko njëkk ci tariqa bi jawaahir téere bu am doole la ndax liñ ko bind ci jamonoy cheikh te mu wax ci lu bari ci cheikh nag ci dundam ak ci jaar-jaaram ak ci wàllu tariqa bi waaye jaamiu itam nit niki noonu la mel ñu ngi ko bind ci dund cheikh mu ngi wax ci jaar-jaari cheikh ak lu jëm ci tariqa bi ba wax lu amul ci jawaahir est-ce que mën nga leen a ëppale doole doole ju bare noonu mu ne téere bi gën a am doole mooy jawaahirul maani wa buluugul maraami noonu la ko bindee mu ne léegi al maqsadul ahmad lil kattaani loolu laa bëgg xam moom fu mu jógee loolu mooy lan mizaanur rahmati rabbaaniya mu ne ubayat ibni mbooje walladi yuctabaru xulaasata kitaabil futuhaat aw fen la mu ne wa min al masaadir al muhimmati jiddan inda al qawmi rimaaxu xizbi rahim loolu dëgg la wa baadaha yati kitaabul jaamee xam nga loolu mooy xamoo sax li ngay wax maanaam jaamee ci boppam moog jawaahirul maani ñoo tolloo martaba nga ne léegi da ngay indi jawaahir moo ëpp doole après jawaahir maqsadul ahmad après maqsadul ahmad euh, léegi Euh, misaanu rahmat rabbaniya xomalan après rimaax après jaamiu door a ñëw après jaamiu door a ñëw waaw mu ne bokk na ca masaadir yi gën a am doole itam mooy asirrul baahir fii man farada bihil jaami an jo xam nga lool du masaadir yi ëpp doole kooku dafa am masala bu ndaw bu muy wax rek maanaam loo xam ne nekk na ci jawa jaami te nekkul ci jawaahir masal loolu rek lay wax waa ana yeneen téere yi ana ñoom buxyatul mustafid ana ñoom muniyatul murid ana duratul xarida ana téere yi ana téere yi téere yi nga xam ci tariqam lay wax mu ne sirrul baahir boobu jamaa fihi al aqwaal min jawaahiri maani loolu du dëgg moom liñ ko bindal sax baaxul mu ne wa kitaabu al ifaadat al ahmadiya sid tayiba sufiyaani mu ne jamaa fiihi ma samiahu min acheikh musaafatan aw kada kada ala xaw summa xtasarahu fi kitaabin asmaahu kashful xijaab loolu loolu mooy waxi nag fenn wu rëy noonu est-ce que bos naa am ifaada al ahmadiya dañ ko ixtisaar tënk ko ci téere bu ñuy wax kashful xijaab loolu mooy lan ifaada al ahmadiya moom ay waxi cheikh lay wax cheikh waxoon na nangam baat sàngam waxoon na ibaara sàngam waxoon na ibaara sàngam loolu luñ koy tënkee ci téere boo xam ne danaan diw àndoon ak cheikh mi ngi judd bi sàngam mi ngi dangam nangam diw la àndaloon diw nangam téere taraajim ñu tënk ko ci téere boo xam ne ay taqaayit ay wax yu jóge ci cheikh kashful xijaab mooy muxtasaru ifaada al yi kii rek moo ko mos a wax ci àdduna mu ne kashful xijaab ci boppam wa jaala lahu sharxan da koo defal ab sharxa tuddee ko al ijaada ala al ifaada wa kitaab bughyatul mustafid sharaxa sharaxa fiihi muallifu ma jaa fi muniyatil murid min nazmi ahmad ibni baaba tijaani ibni baaba misaanu ra misaanu rahmat rabbani abad ibni duratul xarida dégg nga al jeyshul kafir bil axdi bi maanaam yii yépp téere yi moom ban la ci am ban téere la ci am ci téere yi kon wahabiyun ñi ngi noonu fépp foo gis nit di taltali di wax boo ko dégloo bu baax ab téere kuy contre la yor benn téere di liir bu fekkee ne xam na dara ba xam dara benn texte jawaahirul maani dañ ko ko yónnee boobu la yor da koy yaxtafiru biha bil waraqa ba heure bu bëggee sànni rek mu jël loola sànni ci groupe daane léegi boo demee ci jawaahir da nga ko fekk nangam ak jeex na amul leneen loolu nag du jëmale benn mbir kanam ay neen ak ñàkk a jàng kenn mënu cee tabax dëgg ak woote woote moom dafay tege ci xam-xam rek ala basiratin sudul loolu mënoo woo kenn moom ñëw da saaga nag nit ñi mer nga wax lu bon nit ñi mer nga ŋàññi sëriñ jàmbur nit ñi mer mais yow doo gindi kenn ila yawmi diini wassalaamu aleykum wa rahmatullahi